alors ñëw nañ fii tey ci président Moustapha Niass pour indi parrainage bi nga xam ne moom la ñu liggéey doon liggéey ci président Macky Sall sant ñu ko bon li ci ëpp solo pour man wax naa ko léegi ci kanam président Moustapha Niass ne mbir mi nekkul na ma jiitu wala jiitu mbir ñu toll tey li ñu war a fexe.

wala mok Lamine Dieng que ne bi nga xamné mom moom soxla won ci région de Kaolack dépassé nañ ko lu bari bari deuxièmement Lamine wax ne léegi mi nga xamné mo moo doon saytu liggéey bi ci wetu président que li rahma indi kenn indee góob waaye yooyu yëpp pour man li ëpp solo tay moy fexe ñu continuer liggéey bi parce que liggéey bi nak du rek parrainage parrainage dëgg la ci la waaye dama japp na lolu tambali la. liggéey bi moy dem ci terrain bi liggéey bi moy wax ak population bi liggéey bi moy wane li président Macky Sall def

Euh, dafay fekk ay liggéey yoo xamante ne nii dañ koo tàmbali woon waa ma ne moom su fekkee dafa fekkee ne ay liggéey yu fekkee ne tàmbali ko sax baax na même bu fekkee loolu dëgg la sax mooy ne bu amutoon pas-pas du ko mottali te dama koo wax ne ko soxor du cëru jullit te moom comme mi ngi askanee boppam ci jullit na bàyyi di wax di sos yoo xamante ni tegu ko fen wala di wax loo xaman ne yow mi ngay wax sax gëmuloo ko Kanaway liggéey fi dara lim liggéey lii projet yi muy wax yëpp ay kàccineen la rek xam nga di tudd ay chiffres yoo xam ne li ngay tudd maîtriser woo ci dara bu ñu ne lii la nga toxu dem feneen loolu moom waxi wut bës la ak waxi maa ngi nii rek xool leen ma maa ngi nii di wax rek pour wax loolu amul benn solo xam nga daal dama wax ne président Macky Sall candidat lañu am waxoon naa ko ca si Sibassor mën na ñun candidat bi ñu am nekkul candidat bu ñu wone wala bu ñuy laajte ñun candidat bi ñuy bi ñuy wone di ko jaayaat askan bi mooy candidat bi nga xam ne laata muy falu nekk président wane na ay preuve am yi ñoo ko wax jot na réew mi wane ay preuve sénégalais yi ñoo ko wax jël na réew mi ba dem ba jeexal mandat sax di tàmbaliwaat ay liggéey yu bees yoo xamante ne nii mi ngi koy soog mi ngi koy tàmbaliwaat loolu li muy wane mooy ne ñiy wax nañu wax dama dégg tubaab yi ñuy faral di wax ne naqaj yi di mbow ñuy jëf di def alors man loolu laa jàpp ne mooy candidat Macky Sall alors lii ñu fi indi tey nii nag indi ko ci turu mboole seen ñi nga xam ne ñi ngi ànd liggéey ak ñun ci Rahma dama jàpp ne jubluwuñ ci kenn ñoo jiitu déedéet ñi ko wax dëgg ñoo jiitu waaye loolu ëppal li ñu solo li ñu ëppal solo tey mooy wax naa léegi ne ko yaakaar naa ne fekk 48 heures yi jëm suñu kanam incha allah am na yenn parrainage yoo xam ne euh, ñu ngi doon liggéey ca pare nañ waaye yàkkamti ak ni ñu ma waxee démb ci guddi na ma tey la la président di recevoir moo tax teewuñ waaye incha allah loolu dinañ ko indiwaat fii ci président Moustapha Niass pour déposer ko ci moom maa ngi sant mboolem presque bi nga xam ne teew nañ fii tey doon liggéey pour fexe jotal xibaar yu askan bi te loolu moom la ñu xaar ci ñoom ci ñi ngi ci maa ngi remercier euh, bu baax ma kenn mbooleem ñi nga xam ne ñoo àndoon di liggéey ci biir parrainage bi muy waa raxma yi di góor ñi ak jigéen maa ngi toog ni ak coordinateur Pape Babacar Ndour di remercier jigéen ñi bu baax wax naa ne jigéen ñi nag yar bi moom ñoo ko yore képp ku fi cëppi cëppi moom jigéen dana la caw fi mu ne ca doo ci wax dara maa bu baax seen taxawaay yi rëy na kaar macha allah liggéey nañ liggéey boo xam ne man sax fooguma ko woon ci ñoom waaye nag maa ngi wax tamit ne ñi nga xam ne ñooy saytu nañ fexe nag ba ñu déposé ñëm nag ñu saytu li ñu déposé parce que nag déposé naa 10 000 wala fekkoon naa 30 mille wala déposé naa 20 000 rek dem tëdd ne déposé naa am naa nangam loolu dëgg du yoon nañu saytu

liggéey boo xam ne ku ko gis da nga xam ne lii liggéey bu sell la da nga xam ne lii dëgg la loolu la ñuy xaar ñun ci incha allah ñun ci loolu lañu nekk di ci invité mboolem responsable yi ñu nekk ci loolu parce que loolu moo ñuy jëmale kanam loolu mooy tax li président Macky Sall mu bëgg ko ci ñun suñ premier tour bii bugguñ ci dara loo xam ne boo léegi dañ naan nii la demee dañoo sàcc ak dañoo lii loolu moom xewi na élection kenn mëtu ko sàcc ci réew fexe opposition bi wax buñ demee le soir de élection rikki waay buñ fi nekk naan dañuy sàcc ku gis kuy sàcc am ci preuve wane ko gis fii kenn sàcc fi nit ñi dañu liggéey liggéey bu sell ànd ak xol bu laab liggéey président Macky Sall li nga xam ne ni jàpp nañ ne mooy engagement bi ñu jël ci wetam loolu moom lañ def moom lañ respecté maa ngi sant mbooleem kilifa yi di sant mbooleem ñi nga xam ne ñoom na président dénk liggéey bi ñu di ko saytu ba mu toll fii maa ngi remercier